المصطفى نويت ما يجدد de télévision culturel et religieuse waaw chaîne bi jug taxaw temm ngir yaatal lépp lu jëm ci wàllu diine rawatina njàngaleem Serigne Touba Cheikhoul Khadim moo fas yéene nag gën a jege askan yi fépp fu ñu mën a nekk ci biir réewum Sénégal ak bitim réew ngir jàppale leen ci bépp xeetu événement boo xamante ne bii yéen a koy amal te ngeen soxla wàllu couverture médiatique waaw publi reportage réalisation documentaire téléfilm waaw wala lépp lu ngeen mën di soxla yéen ñiy organiser ay màggal cant yi gàmmo yi cérémonie yi Rafah TV amuñ ci morom soo bëggee ñu filmeel la diffuseel la waaye boo bëggee itam ñu filmeel la jox la say image wala say vidéo fépp foo bëgg nga yóbbu bu leen am xel ci jokkoo ak ñun 77 433 39 39 Rafah TV waaw moo mën ci seeni événement mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi min jadid nu ngi leen di dalalaat di leen ziyaarewaat ak ndokkeel ci jotaay bu tedd bu am solo bi nga xam ne yàlla tawféexale nañu ñu teewee ko di ndokkeel bu baax sunu kilifa yi nga xamante ni ñoom lañu bokkal jotaay bi ñu jiite liggéey bi nekk ci boppu njaboot gi di ñaan sunu borom mu yàggal seenu taxawaay te dëgëral leen ba mboolem li ñu naal ci liggéey bi ñu eggale ko fu kawe seen jot. xam naa ni ñu ko waxee woon dañuy wéyal programme bi ñu ngi tàmbale woon ak muhaadara bi nga xamante ne sëriñ Ahmadou Mbacké Darou Mouhty jàllale na ko fi mu jëmoon ci jàmm mu doon waxtaan woo xamante ne waxtaan wu ama am solo la làmboo ay njariñ yu bëree bëri rawatina ci jamono bi nga xamante ne moom lañu ñu toll muy jamonoy yëngatu ak ñàkk dal ñàkk stabilité ci réew mi ci domaine yu wuute wuute rawatina ci wàllu politique mu mel ne kon thème la boo xamante ne bu yaaya jàngat la bu yaaya nafar la jamono bu nekk waaye rawatina ci jamono bi ñu toll ndax danay baax jamono bu nekk problème yi jullit yi di jànkoonteel ñu delluwaat ci seen diine delluwaat ci njàngaleem lislaam ngir mën a xool naka lañuy def ba lijjanti ko naka lañuy def ba regle problème yooyu te gis nañ ci biir waxtaan wi loolu fës na ci bu baax a baax al ustaaz dellu na ci njàngaleem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wane ne lislaam lépp jàmm la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam it dundam gépp jàmm la waaye sëriñ Tuubaa radiallahu anhu day mel ni jëmm la woon joo xamante ne daf doon jëmmal daf doon euh, représenté li nga xamante ne mooy jàmm ci dundam gépp ba mu jeex tàkk looloo tax malgre tooñ yi ñu ko tooñ ak sonal ak fitnaal gu ko tubaab yi doon teg yépp mu fexe ba jàllale li mu bëggoon samp li mu bëggoon a taxawal defaraat yeesalaat diine ci ni mu ko bëggee woon samp liggéey bu réy bi mu taxawal te dara luy fitna raxu ca dara luy ak noonoonte wala ak dëngoonte walla seqi fitna raxut ca booba liggéey day mel ne bayitam wu si woowee ca ba ñu ko attaqué ca Darul Rahman wala Darul Mannan ca xasida ga ya jumlatan qad thallathuu bi dalalihim man lam yakun waladun lahu aw walidun wax ba ne inni ujahidu bil ulumi wa bittuqa abdan xadiman wal muhayminu rek bu ñu ko delloowaatoon joxaat ko beneen lecture dafay basé wu ci actualité wala réalité yi ñuy dundu danañu mën a gis solution boo xamante ne mboolem problème yi am dana mën a saafaraw ndax mboolem lu di nit ki bëgg a taxawal moo xam lu aju ci wàllu adduna wala lu aju ci wàllum yàlla bu jaaree ci méthode boobu mu jaaroon mën naa am li mu bëgg mooy al ilmu wa tuqa kon tarbiya at taalim dugg na foofu abdan xadiman mbooleem nit ki ñu soxla ba mën a taxawal liñ bëgg a taxawal bu dee citoyen la ñu soxla bu fekkee ni am jullit la ñu soxla mbooleem melokaan yi mu war a làmboo mbooleem jikko yi mu war a takkaayoo génnut al abdul xadim wal mi muhayminu shahidun nag représenté li nga xamante ne mooy pas-pas ak ngëm-ngëm bi nga xamante ne mooy nekk ci conscience am jamono bu nekk kon day ne loolu jëmmal na bu baax a baax eh, dund goom dund jàmm ak jëmmal gu mu ko jëmmal ci ab dundam yépp te njëlbeenug jàmm day mel ne mooy arrahma awalu salaami arrahma yërmaande jooju nag moo feesoon ci ak dundam yépp ba tax mu doon wax yaa malikal mulki yaa man jalla an qawadin irham jamia al wara yaa hadiyan rada ak ci circonstances yi nga xamante ne moom la doon waxee xasida googu defe naa kon lu mat a jàngat la thème bu mat a taxaw la rawatina ci jamono bi ñu dund sëñ Ahmadu ñu koy ñaanal suñu borom yokk ko sutura yokk aw fanam barkeel xam-xamam ba mboolem li mu naal ci tool bi mu am ci lu kawe njortam xam naa ni ñu ko waxee woon dañuy wéyal jotaay bi bu ko defee jàll ci kàddug daayira bi te ki ko war a jàllale muy sëriñ Mahdi Diop bu ko defee dañ koy jox kàddu bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk yu tedd noo ngi leen di nuyu noo ngi leen di siyaara itam di leen balu xaq junu yëg ak junu yëgul ci turu daaira xuddaamu diinil islaam wa tullaabul fawsil azim waaye di leen baal xaq jooju itam ci turam tey ñaan suñu boroom subhaanahu wa taala mi nga xam ne moom la ak njëggalam am njëriñ te amal nu ko yàlla na nu boole ak njëggal ci daraje sëriñ bi ak mbaaxam kàdduy daayira bii may waxtaane nag noo ngi leen ci nuyu baax te di leen ci siyaar kàddu daayira bi nag ci njiitalu Sëriñ Abdou Lahad ak membre yi bootu ci biir bi koy jàppale ak mboolem ku bokk ci daayira bi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar daayira bi nag buñ ko waxee lu tur wi gàtt gàtt nañ xam ne lu yaatoo yaatu la ëmb mu ngi tudd xuddaamu diinil islaam wa tullaabul fawsil azim di ñaari tur yoo xam ne bu ci nekk mi ngi jóge ci kàddu Cheikh Habibullahi radiyallahu taala anhu benn bi doonoon daayira bi bootoon mag ñi bi ci des doonoon wala mu wéy di doon daayira bi boot ndaw ñi ñu boole ñaari daayira yépp nag muy benn kon ci seen tur lañuy waxee ak yéen li ñuy fàttali suñ bopp te di ko fàttali ñëpp mooy ñu maase xam ne liggéey bi ñu bokk séq soxla na ab taxawaay ak ay taxawaay ndax ab taxawaay moo jur ay taxawaay ay taxawaay buñ taxawee ay jéego juddu te jéego yooyee bu juddoo barab ba tax ba ko tax jóg dana yég na ay jéego séqiku na ngir moom kon ci kàddu daayira bi ñoo ngi leen di yalwaan mboolem ku mas a jaar ci daara ji ak ku fi ne jamono jii nun ñëpp nu bokk am taxawaay boobu ngir yàlla amatuñ kumpa ci kenn ci ñii fi teew ak ñi ñëwut ci ne bis bi ak cooxe am na ci doxiinu daayira bi it ak cooxe am na ci waaye cooxe googu li muy bari bari nunu nee na taxawaay yi rekk a des bu ab taxawaay amee kenn ku na yëg ne moom wuru doon ab jaambur kenn ku ne yëg ne pas-pas bu dëgër ak positif mu mat ak yitte ju kawe la war a àndal yàlla mën noo dimbali ba fu nu bëgg àgg mën nañ fa àgg waaye faaw yitte ji am sëñ Muntaxa nee na ma woon lu sotti yitte ko sottal te muy dëgg ju wér kon day mel ni nit ki moom lu mu jëmbat yitte yàlla mën na ko jaa defal ndam yitte jooju nag noo ngi koy yalwaan ñëpp ngir yàlla jëmmi alxuraan mi nu boole moo xam ñi ne ci biir réew mi la wala ñi ne ci bitim réew ñun ñëpp lañu yelwaan yitte yooyu ñu am ko ngir yàlla ak pëstéef bu kawe ngir bis bi niñ bëgg mu mel ko mu mën koo mel waaye fi ñu bëgg mu yegg fa it mu mën faa yegg te doonul lu jafe li mbooloo mi bari bari bu kenn ku ne soññee boppam rek pëstéef daal di daje te pëstéef fu daje ay jéego feeñ fa waaye bu ku nekk yaakaare ne diwa nga fa kon doy na wala ñoom diwa nga fa kon doy na wala ah diw de moom nangam ak nangam kon doy na dara du sotti ndax diw moomee bu amee taxawaay ba nga am la nga yaakaar ne mën naa sotti mën naa bañ a sotti yow kay da nga naan naa dem ne fa luñ ne mën a ca lu ñu wax maa ko war a wax wala lu ñu war a jëf maa ko war a jëf sa morom def noonu sa morom def noonu taxawaay yooyu mooy indi ay jéego loolu nag noo ngi ciy tàllal loxo ñëpp ngir yàlla jëmi sëriñ bi ndax kat ni farloo mënee am. pëstéefin man koo amee noonu la ak yaafus aku yaacaaral mën a amee it mi ngi aju ci kaw yittey kii war a def te nangoo def ngir yàlla mbaa mu war a def te gàntal ak defam ngir yil la waaye lu mën a xew rek bu ab taxawaay amee fuñ bëgg yëf yi fa mën na fa am taxawaay boobu nag xeebu nu ci kenn du xelam du dooleem du alalam sas yi nga xam ne dañ koo topp sas ko képp koo xam ne da bokk ci daayira bi noo ngi wéy di ci soññee ñu gën koo bàyyi xel ngir yàlla di góorgóorlu ba di wàccoog moom ndax at mu nekk daayira bi dana sonn lool ci ñu génn sas woowu joxe ko coono boobu nag noo leen ci ñaan yéen ñi boor ci daayira bi ngeen noppal ci daayira bi ngir yàlla eh, man mi waxe ak kenn laa ci ñi koy soññee waaye am na yëg-yëg bu ma ci am ak njàngat it mu ma ci am waaye ma am na ma bàyyiloo xel saa bopp ak képp ku may dégg saafiyan yi daa waxoon ne alal yëpp xeeti alal yi nga xam ne maanaam xeeti wërsëg yi suñu borom di wërsëgal la ab julit bi ci gën a suufee daraja mooy wërsëgu alal nun nag kuñ ci tudd baatub alal xaalis rek ngay jàpp ne moom moo tax ñuy wax waaye xaalis kenn la ci njabootuk alal xaalis alal la ay machine alal la ak jur alal la ak yu mel na ñoom kon alal yaatu na waaye li ci gën a fës fi mu ne nii ci lu ñu mën a tudde alal mooy xaalis ku am xaalis ñu ne di borom alal la waaye nañ bàyyi xel ne almaalahu wa adna darajatu risq alal bokk na ci wërsëg yi gën a suufe daraja ci wërsëg yi yàlla yi wërsëgal ab jullit wërsëg wi ëpp daraja ci xeeti wërsëg yi suñu borom di wërsëgal ab jullit mooy jàmm wal aafiyat wa ahla darajat risq jàmm moo tax kenn wuru ko foyee moom la sëñ Ahmad doon waxtaane wërsëg wi gën ci xeeti wërsëg yi mooy doom ju jub yàlla na ko yàlla jox te jox leen ko aslaahu alamnaai afdalu min anwaahi risq amma radiya rabbul alamin fa huwa tamaamu risq waaye nag wërsëg bi nga xam ne moom moo gën a matale ci xeeti wërsëg yépp mooy wërsëgu ngërëmul yàlla ngërëmul yàlla moo moomu nag mënees na koo wut ci anam yu bari waaye benn ci bi ñu tax a daje fii képp te mooy yëkkati ci sa alal di ko jëme fu joxoñu bi yàlla jëm loolu nañ ko xam nañ ko xam kët ndax am na njariñ amal nañu ginnaaw xeeti wërsëg yépp bi ci ëpp solo te gën cee matale gën cee sedd xol mooy ngërëmul yàlla te manees na ko am ci kaw yitte joo am ci fu joxoñu bi yàlla jëm loolu na nga ciy soññ suñu bopp dinañ soñ yéen ñëpp mboolem li ñuy bëgg nag di ci gën a bon mooy bëgg alal waaye rawatina nag àgg gi di ci ñàkk solo di ci ñàkk sago loolu moom ab julit wurta sàggan bam di ko dal mboolem lu ñu war a bëgg laa wax bëgg alal moo ci gën a suufe daraja waaye nag gëj a yées nag mooy àgg ci ñàkk ci sago te am na koo xam ne waxuma la la muy coobaraw di ko jëf waaye la mu sasoo rek lu ne danga ko daj ngir mu joxe ko te bëgg gu metti moo ko ko yóbbee ñaare ki bëgg du bëgg a ñàkk te ñàkk ngir yàlla gën ñàkk ngir yilla ndax yàlla daa gën a woom kon noo ngi leen di yalwaan ngir yàlla bu kenn mënta jaayante ndara def ko ci coobaray boppam itam na góor góorgóorlu ba sas wiñ ko tobbil mu bay ko nun ñëpp war di góor góorgóorlu di wàccoog sas wi ngir yàlla mboolem ku mas a jaar daara si ayib bu nag laa wax bayiwu ma góor bayiwu ma jigéen ñëpp war a góorgóorlu di bay sas wi bu mu nee mboolem ko fi ma si jaar nag maa ko tàmbalee ci atum 1931 ba fii ñuy waxe yéen ba ci gone yii mujj jëlug bër ngir tabaski gi mboolem ku fi jaar rek yaa ngi ci biir liggéey boobu bu fekkee yaa ngi ci kaw suuf tey dund te tal ko 1931 jël sëñ Abibu tàmbali njàng mu wér ci ndigalu Cheikh Moustapha na ko sëñ Taïba Sara misaale woon ci ay wayiti wolof ne ko Cheikh Moustapha moom Serigne Touba jëfal nga ko fii loo xam ne waaju ko jëf yelloo nga bépp ngërëm moo la tuxal fii fi Touba dal di jàppi rakam jox la ko ngir nga di leen jàngal bañ xam lañu xam Cheikh Abdoulahi Lahat ak Abdoulahi Samat ak naa Cheikhuna bu ñii ñëpp def nga ci xam ñii ñëpp yaa leen xamal xam-xam ba noppi ci ñoom Cheikh Moustapha teewe jëf ji ñëpp jox la ngërëm liggéey boobu sëñ Ayib mi ngi ko tàmbale woon ci 1931 ci teewaayu Cheikh Moustapha al Karim ak ci càkkutéefam ak ci ndigalam yéen ni Cheikh Abdoul Ahad Mbacké radiyallahu anhu rakkam mu jëli li ko njaareem ci kër sëñ mat dem mu ñëw tàmbale liggéey boobu ci Touba dama ne foo fii la liggéey bi tàmbale woon ba fii ñuy wax ak yéen képp ku fi jaar war na ci yow ngir yàlla warit ci yow ngir yilla nga góorgóoru ba ñaari junni yii daayira bi topp bi nga di ko bay at mu ne te joxe ñaari junni yëm ci daara ji jëfewut bu kenn jaayantiwul woon dara itam ci coobaree bappam te góor góorgóorlu ba ñaari junni yi muy wàcc moom rek ñun sun aajo dana faju liñ bëgg def danañ ko def ndax millions yu bari dana fi daje ñu def ci daara jii ak ca daara jee ak ca daara jële te kenn du sonn li tax yàlla naan wa taawanu ala birri wa taqwa moo xam njariñ li moo tax mu digal nu ko te nun dañoo war a jëfe ndigal bu kenn ku ne tegoon fi juróomi dërëm taabal ji fees dell ki juróom te kenn du yëgub coona ndax juróom daa bariwut du jur coona waaye bu juróom yi dajee nag buñ ko dugalee ci daara ji ñu yëg ne amal na njariñ waa daara ji te moo ne ñi ko fi indi de kenn yëgu ci ab coono lépp noonu la mel kon noo ngi yelwaan membre yëpp képp ku jaar ci loxob sëñ abibu mbaa nga jaar ci loxob doomi sëñ abibu wala njabootam sarax nu ngir yàlla ak jëmmi sëriñ Tuubaa ci ñaari junni yii ñuy laajal daara ji at mu nekk nga góor góorgóorlu ci ba di ko wàccoog moom rek te yàlla tax te bañ a féetewoo gaa yaa ngi joxe kat gaa yi kat ñi ngi teg ah gaa yi kat waxutuñ dara ñi ngi teg a ah, kay bokkal ci ñuy teg rek bu baax mu gën a baax da ngay dugg ci biir gaa yi te bañ a taxaw fee di ñee gaay yi ak waxtaane gaa yi amul solo man gisatuma ku ma koy laaj wërta mu ñëw gisatuma ñama daan gis wërta mu ñëw man kenn soññu ma wërta nga joxe ko man kat diw ak laa xam xawma leen looy wërta mu ñëw koo jox ngir yàlla nga xam ko nga ñàkk ko xam du tee yàlla dana faj sa aajo dana la fay nii waa daaru salaam yi daan def nga xam ne jébale seen adee jël almet teg ci kaw ne sëriñ bi noppi nañ ci bu la neexee jariñoo bu la neexee taal kuy def ngir yàlla foofii la war a ne gis ña nga daan gis ak ñàkk leen a gis gis koo xam ak koo xamut ak gis ku la soñ ak koo soñut ñëpp da war a góorgóor ba wàccoog war a fi rek ndax kat dañoo war a joxe ngir yàlla mbaa na joxe ngir yéen la te yëpp la daayira bi soxla dañoo war a joxe ngir yàlla ndax yàlla nu soññ ci ñuy leblante ak moom ngir am gum nu amal njariñ man za allazi yuqridu llaha qardan hasana fa yudaa'ifuhu lahu wa lahu ajrun karim ci beneen barab fa yudaa'ifuhu lahu adaafan kasira kon leblanteeg yàlla kon joxe ngir yàlla am na njariñ ngir loolu waaye dañoo war a joxe kon ngir yilla bu fekkee mënuñoo joxe ngir yàlla yilla ji mooy daara jee ñu taxaw daara jeenu jàngal daara jeenu yar daara jeenu gindi ci lislaam ba buñ jëfee kenn duñu xeeb buñ waxee kenn duñu xeeb kon war nañoo joxe ngir yàlla mbaa ngir yilla te boo ci def daayira bi soxla na kaddu yi daayira baa ngoog wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di ziyaar yéen ñëpp tey baalu xaq tey jéggalu kaddu yi nga xam ne ak ci bërëb bii ñu toog di ko yëkkati ci kanami suñuy kilifa suñuy way jur suñuy baay suñuy sëriñ suñuy mag képp ci ñoom rek ñoo ngi leen di jéggulu bu baax te di leen baalu xaq te di leen ñaanal suñ boroom gën ñoo gën leen fi yàggal te defal leen ak wér ba jataay bi niñ leen ciy gisee jamono ju ne muy gën di continuer te jamono ju it ne it yàlla di gën di jëmmal jataay bi ba liñ fi wax lépp buñ fi jigee mu mën a saafaraw barkeb Seexul Xadiim gannaaw loolu it kii wax kàddu yi mu yëkkati def ko yëkkati jaarale ko ci ab daayira boo xam ne ba mu dalee jàppale daara ji ak léegi ëpp na fukki at tey li ëpp ci nit ñi li nga xam ci lim koy jàppalee daara ji mooy lu jëm ci courant bi waaye it ba jamono pas-pas yi di gën di dëgër ndax léegi moom mel na ne bari na ñoo xam ne dañuy yam ci am naa yéene rek waaye léeg-léegi duñ jéem dañuy yam ci am naa yéene rek waaye léeg-léegi duñ jéem te bu njëkk ba ñi daan wax am naa yéene daan nañ jéem ba mbooloo mi daan yég na ñi ñi ngi ñi ngi jéem ba loolu amagul nag daawun yam ci courant daara ji rek waaye léegi-léegi daan nañ gis ay yàq-yàq yu ndaw ci daara ji wala jëwriñ ji nga xam ne moo nekk ci daara ji xam ne daara ji am na soxla irsan yoo xam ne soxla na ko ko ci dimbali daayira bi jël ci keesam dimbalee ko ca loola daayira boobu mooy daayira tasawudu sixaar tasawudu sixaar nag yaakaar naa ñun waa daara ji dañoo war a taxaw xalaataat bu baax ci tasawudu sixaar ka nga xam ne mooy membre fondateur bu mag ba nekkoon fi te jóge fi muy sëñ Moustapha Lo doonoon koo xam ne ab dëkkandoo la ci daara ji ab dëkkandoo la ci daara ji mën nañoo wax sax ne bu dee amoon na ci doom ci daara ji doomam am njàngam yàggul ci daara ji diir bu gàtt la fi def soxna suñ mas faaloo mi ngi dëkkoon kër soxna bintu gii yàlla dogal na jóge na fi yàlla na ko yàlla dolli yërmande ak njéggal mu doonoon ko am yitte ci daara ji te suñ kilifa yu bari doon fi jàngale ci jamono jooju am na ci ñoo xam ne comme ni am ndongo daara di bëggee kafe bokk na ci moom këram fañ daan dimbalikoo daan fa jëfandikoo kafe ngir mën koo jariñoo yaakaar naa ne buñ waxee tur woowu xam la ne bokk na ci membre fondateur yi te mën nañoo wax ne moom doomam mokkalewul ci daara ji dafay jaar te ak mujj sax doomam yi jàngewuñ ci daara ji dañoo teel a bàyyi jàng yaakaar naa ñun ñi fi jaaroon war nañoo am yitte ju rëy rëy ci daara ji ndax kooku la jaraloon muy sonn ci liggéey boobu mooy liggéeyal boppam ndax xam na ne bërëb bii di bërëbu alquran boroom joxe ko jóge fi santaane sa joxewul ndigal ci benn doomam mu doon lu bërëb bi lépp rek mu joxe ko ngir jëmmi alquran yaakaar naa ne kooku amoon na gis-gis bu rëy ba taxoon mu nangoo sonn ci bërëb bii nga xam ne mooy bërëb bu alquran bi kon ñun ñi nga xam ne ñoo fi jaar te yàlla dogal daayira tasawul sixaar jiitu bàyyi koog sëñ Saaliwu nga xam ne loolu ci jamono yi 2006 ci la daayira Tasawudu Saxaar taxaw woon bàyyi ko jiitu nga xam ne ñoom suñu xaalim Njaay gaar ba ñoom suñu xaalim Njaay Mbàkke ak suñu ñoom Maxtaar Diop ñoom suñu Maxtaar Diop ak kilifa ci biir daara ji ñoom ñoo ko doon taxawu ba daayira bi yegsi fii nga xam ne fi la yegsi ba léegi yëmatul ci facture daara ji waaye day jàppale daara ji du jëm ci wàllum kafe gi nga xam ne am na ku koy jàppalante daara ji la koy suukar ak yeneen yooyu nga xam ne léeg-léegi daara ji dana soxla ko soxla woo dimbali koo loola te léeg-léegi poosam du mel nenn yi mu diis ko ko mu def ca lam ca man ca daara ji ku ne xam ne ne courant bi yokk na wax yaakaar naa daara ji ñuy wax daara jigéen ñi bari ñoo xam ne bi ñuy jógee ci daara ji daara jigéen ñi meluwut melutoon nii te ku ne xam ne ne am na lu fa yokk ku xam na ne am na lu fa yokk kër gii nga xam ne ci daara ji la bokk it ku xam na ne it lu yokk la ci daara ji kon li nga xam ne mooy li war a def ñu ñi jaaroo ci daara ji mooy fexe xam tu daayira tasawu di saxaar bañ xamal leen ko lan mooy njariñam ci daara ji ñu jéem a bindu ci daayira ba fexe ba joxe fa seeni numéro bu soobee yàlla ñoom duñ am jafe-jafe bu buñ duggee weeru gàmm wala bala ñu koy dugg ñu woo la xamal ne la at mi kat mi ngi bëgg a jeex bu dee góor nga ñu ne la 5000 francs lañ lay laaj bu dee jigéen nga ñeen ne la 3000 francs lañ lay laaj kon yaakaar naa ne doonu loo xam ne dañ lay soxla woo jamono ju ne rek naan la ñëwal teew ci daayira bi waaye ñun li ñuy yitteel rek mooy nga bàyyi ñu fi sam numéro boo xam ne buñ la soxlaa ngir nga def ci daar ji dana la jot woo la ci numéro booba wax la la nga xam ne moom la daayira bi di sase wax la sas wa nga def ca lan ca man loolu mooy li nga xam ne moom la daayira bi yittewoo ndax ku ne xam na ne daara ji ñun ñi fi ñëwoon jàng ñu fi indi te daara ji dana jàng marax di jàng fajar di jàng suba di jàng ngoon te waxtu wu ne da nga yittewoo courant te courant boobu moo lay dimbali ngir yow li la fi indi woon nga mën ko am comme que courant boobu nag moo la daan dimbali ba yow li la fi indi woon nga mën koo am war ngaa fexe ba boo fi jógee daara ji courant du mas a coupé kon ñun ñi fi jaaroon nañ jàppale daara ji ci taxawu ko ci taxawu ko bam mën naa jàppale daara ji ci taxawu ko ba moom dootul amati jafe-jafe courant ndax daayira Sixaar lu ëpp fukki at ak nangam muy taxawu wàllum courant ba léegi ci daara jii la yam ak léegi-léegi mu barkeelu ci beneen daara yaakaar naa ne waroon naa weesu fii waroon naa taxaw ci daara yëpp fay gi muy fay courant daara ji heure bii waroon naa weesu mu mën a fay daara si ñuy yëpp seen courant bu fekkee ne ñu jaar ci daara ji yëpp xam nañ li leen war ta nekk ca xëy na sax xam nañ li leen war ci daara ji waaye dañ caa ñu ci ëpp dañ caa nekkut ñi ci nekk kon dees na leen jaajëfal waaye ñi nga xam ne xam nañ li leen war nag te nekkuñ ca. dañuy jàpp ne kon liggéey daara ji da leen a yitteelu te it nag da leen war a yitteel ndax ku ne bi la fi sa wayjur di indi ci daara ji ñàkk laa manal li taxoon mu la fi indi moo taxoon mu indi la fi kon boo fi ñëwee ba am fi li fi doon wut daara ji moom ku ne xam na ne ku fi ñëw boo fi mokkalewul alxuraan bindoo fi kaamil jàngoo fi xam-xam barke moom kenn doo ci ñee kenn waaw barke doo ci ñee kenn ak njubit doo ci ñee kenn néewaa na ku bàyyi koo si ñëw bi bu nga génn ci biti ñu ne ndongob daara si ci naka sudul noonu la nekk wala ci nangam ak nangam lañ ko téye ci loo xam ne lu ñuy tere la loolu néewaana am nopp boo xam ne da koy dégg kon sutura soosu nga xam ne moom la ñuy defal ñun donga yi nekk ci biir daara ji te loolu lépp ñu amee ko ci barkeb suñu bi bu war nañoo fexe góor góorgóorlu ci liggéeyub daara ji lum laaj rek ñu def ko lum laaj rek mu def ndax liñ fi jariñoo bari na lool liñ fi jariñoo bari na lool bari waa na li nit bi am ci jàpp nañ jàmbaaram la fekk ñaari fan yu mu fanaanoon ci daara si ñëw moo ko may loola moo am léeg-léegi nag nit ki dana am dana bàyyi xel boppam ci lim li ko yàlla xéewalee waaye tamit léeg-léegi nit ki moom day jàpp na lii moom maanaam liggéeyu ndayam la fekk wallaahi lancé mi ñaari fan yu mu fanaanoon ci daara si ñëw moo ko may lim am am na ñoo xam ne nag danañ ko bàyyi xel xam ko bu wér waaye dañ caa nangu a dox ndax jàpp ne buñ doxee seen buñ joxee seen poste day wàññiku te yaakaar naa wàññiku fii ci àdduna moom moo tax ne wàññiku fee ci si biir bàmmeel lépp loo xam ne def nañ ko ci lu baax rawante nag nag niital ñi nga xam ne dañuy jàng ngir bëgg a mokkal jàppale leen ci loolu ñuy nit bañ man koo xam loolu yaakaar naa lu ëpp wiiw amut kon daayira tasawur saxaar képp koo xam ne bëgg nga jee bindu am na ci membre yi ñoo xam ne yor nañu ay list nga xam ne képp ko ci bëgg a bind am na carte membre yi ñuy jaay boo ci bindoo danañ jël sa numéro bindu mi nag nekkul ne ku jaar ci daara ji rek moo tax ñuy wax nekkul ne xale yi képp moo tax ñuy wax waaye 1931 boobu suñu Mahdi yu Jóob tudd maanaam ñu koy jégalu waaye ma ma ma ñi ko tàmbalee ci suñu blaat mi nga xam ne moom la suñ Basiiru jox muy jëwriñu daara ji moom bu bëggee bind ci daayira xaar carte membre yooyu 500 francs lañ koy jaayee. bu ci bindoo bu ci bindoo danañ bind aw turam bind ñaari numérom yi nga xam ne bu fekkee ne ñaari numéro la am ñaari numéro yëpp danañ ko bind bind dëkk bi nga xam ne fa la dëkk saa bu at mi jub seetee dees na ko wax ko li nga xam ne mooy sas wi ngir mu man koo matale kon ñu ngi koy sàkku ci mbokk yi yëpp xam naa ñi nga xam ne it ñoom lañu joxoon liste yi ngir ñu recharge membre yi ñoo ngi leen di soñña bu ñu mënee yëkkati fooy yi nit ñi mën koo gis ba xam fa ñuy jaar ba mën a bindu nga xam ne ku leen gis dana mën a tàllal loxo ngir mën a woo ki yor fooy bi ngir mën ko bind mën a jël ay numérom ñooñu ñu ngi koy sàkku ci ñoom bu fekkee dañoo toogoon ñu jukk ngir nit ñi mën leen gis xam naa nag ñun am na ci ñoo xam ne liñ gën a xamee suñ tur di leen faral di woo téléphone muy Abdou Fatah Sey tuubaa Daaru Xuddoos Daara Sëriñ Habib adresse boobu nag li waral ñu koy joxe mooy dafa amaat beneen liggéey boo xam ne moo ñu waroon ci daara ji suñ mën taxaa doon ci junj muy luñ ñeme ko ci daara ji muy nan la taxawa taxaw a jàngalekat yi bañ mën a toog ci daara ji lum néew ne weer wu ne ñuy am lu leen di jox di ko barkeeloo ci ñoom ñun suñu liggéey ci loolu la gën a jëm ñu tàmbale woon ko ci anum atum 2019 ci ndigal suñu laat boobu ba léegi nag yàlla mi ñu ci suturaal at mu ñëw suñu borom danañ ci suturaal ba lañ bëggoon ñu mën koo def ñu tàmbalee ko nag ci daayira Sëriñ Abibu ji ci jàngalekat yi ak ci jëwriñ yi nekk ci biir daayira Sëriñ Abibu mooy ñi nga xam ne dañ leen faa teg ngir ñu jiite daayira alquran ja jëwriñ yooyu ñuy xool saa bu ñu jubee su tabaski ñu xool lu ñu leen jox ngir ñu barkeeloo ko ñi nekk ci daara ji nga xam ne kenn warul leen dara liñ fi nekk rek dañu fay nekk ngir liggéey ngir am barke ngir liggéey ngir am ak mucc ci àdduna ak ci àllaaxira waaye léeg-léegi ñu am yi soxla jamono naqari ci ñoom lool ca jamonoy tabaski bu jubsee lee léegi dana ci am ñoo xam ne seeni soxla dana gën a yokk moo war loolu ñu tànn ko ci tabaski waaye lii suñ yéene mooy weer wu ne ñu mën a am lu njëkkati jox leen ko ba tax na it jamono jii ñuy wax ak yéen ku ci jokkoo ak Sëñ Abo Mbàkke Gelongal Sëñ soxla na lu mat juróom-ñett fukki nit ci ku ko man Sëñ Abo Mbàkke Gelongal soxla na lu mat juróom-ñett fukki nit ci ku ko man bu ma war warlul daara ji weer wu ne 5000 francs mu warlul ko ko moom lim boobu rek la soxla juróom fukki nit ci ku ko man bu ma nee jokkoog Sëriñ Abo Mbàkke Gelongal Sëriñ dana bind aw turam la jawar ngir muy man a jokkoo moom lépp dana ko def incha allah ñun ñi it ku jokkoo ak ñun boo ñëwee danañ bind saw tur la jawar lépp danañ ko mën a def incha allah loolu nag mbir la moo xam ne dañ ko bëgg a sumb jëmale ko déwén bu fekkee amee nañ ko nañ ko bëggee incha allah di jaajëfal ñëpp di gërëm ñëpp di soññaat képp ku mas a jaar daar Sëriñ Abo wala ngay ab soppe ci biir bër bi te ma jaar ci kilifa yeeg taalibe yeeg ñëpp rek ñu jéem a bind ci daayira tasawu di saxaar ngir liggéey bi gën a mën a jëm ca kanam ñu mën a jàpp ci courant daari si bi yëpp jéggalu lépp lu ci jub rek ñu ngi ciy sant yàlla lu ci dëng ñoo ngi koy jéggalu waaleykum salaam wa rahmatullah wa sallallahu wa sallama ala sayidina wa mawlana muhammadin alhabib wa ala wa sahbihi wa xayri wa matih wa man ixtada bi alayhim ila yawmi mbokki tali fi teew asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñi ngi nuyu mbokki fi teew yépp tey jiital ci nuyoo bi suñu kilifa yu baax yi nga xam ne taaral nañ jataay bi lool ci njiital sëriñ Bassirou Mbacké Cheikh Abdoul Majid ak rakkam yu baax yi mbokkal toog ñépp ak ci turu seen jëwrin bi jëwriñu daara ji Cheikh Mahamadou Basir Cheikh Mahamadou Habib di nuyu it Serigne Cheikhouna Mbacke Habib mi nga xam ne mooy kilifa kër gi tey ñaan suñu borom mu eh, may ko fanu gudd te ànd ko wér kàddu gi gu gàtt lay doon ndax dafa bokk ci kàddu gi nga xam ne Serigne Mountakha doon na ko joox waaye mu seddewoon woon ma ne lii naa ko waxal muy ay cant yoo xam ne dafa jëm ci ñi nga xam ne ñi ngi jàppale daara ji wala ñi ngi jàppale daara yi ci li yaatu ndax kàddu gi nga xam ne doon na ko yëkkati léegi wax ne ci turu daara ji laa koy wax loolu ak maanute rek la ci jublu waaye nañu xam ne jafe-jafe yi daara ji am mboolem fu daara yi nekk te aju ci daara Sëriñ Abiibu jafe-jafe yooyu rek lañ am mooy am ay yite yu ñor xomm yoo xam ne aajo woo nañ ñu leen ci taxawu tam mel ne dañ leen caa seetaan kon loolu walaabal na ci mboolem daara yi ak maante la jublu na ko ñëpp bàyyi xel li mu waxit lu am solo la jamono dafa soppiku ñi nga xam ne ñoo ne ci daara yi eh, bi mu waxee li mu wax ne ñi fi nekk bëgguñ bëgg daara yi ak bëgguñ bëgg a nekk nga xam ne fañ nekk gannaaw bu ñu jógee ci daara yi ñu leen fay jox dara genn wàllu lañ leen jox bu ñu la ko joxoon ñu toog bi mu ko waxee dafa am lu sama xel dem ci mbokkum jàngalekat moo xam ne ñoo bokkoon ne ci daara ji di jàngale muy Serigne Mor Ndiaye ma fëri bi mu fiy jógee àgg na ci xat-xati jamono ak itte yu koy gaar yoo xam ne lenn loo xam ne bu bu ko itte jooju ñëwalee mu mën caa teg loxoom faj ko amut waaye booba àgg na ñuy waxtaan mu ne 10 000 francs képp bu ko amoon yoo xam ne dana ko am par du dem du dem te teewut booba léeg-léeg mbokkam wala xaritam wala ku ko jege woo ko xew woo xam ne dañaa war a dem waaye ñaar téeméer yi mu ko jox rek du ko am te loolu boo sama xarit la woon ñuy waxtaan ci yu baree baree baree bëri booba 10 000 francs képp bu ko doon am yoo xam ne dana ko mën a téye du dem ku toll noonu nag di jàngalekat bu mag bu mel noonu mën a jàngale loolu ñu sàggante ba ba ñàkk ko wax dëgg yàlla loolu mën a ñàkk kon kàddoom googu nañ ko dégg bu baax a baax te bàyyi ko xel te jéem cee waxtaan xool ba xam nan lañ koy solutionné nan la ñuy def ba am solution ci jafe-jafem boobu li sëñ mu daa waxoon wax ko mooy ay da daayira yoo xam ne xaw nañoo àgg ci juróomi daayira yoo xam ne dañoo topp daara ji te di ko jàppale bu baax a baax a baax ba ca jëkk mooy xuddaam din islaam utulaam foosi xasim muy daayira boo xam ne ñi ngi yëkkati kàddu ci turu daara ji di wax ne mboolem seeni coono ak seeni ñaq yi ngeen di dajale guddi ak bëccëg ngir yéene jàppale daara ji mi ngi egsi ci daara ji saa suñ ko tegee ci loxoom kilifa yi kilifa yi danañ ko indi dugal ko ci biir daara ji ba waa daara jëpp yëg ne li ngeen doon dajale egsi na kon loolu bu mbooloo mi teewee daara ji dana yëkkati kàddoom sant leen gërëm leen xamal leen ne li ngeen di def day jar na ko lool ndax saa su ñëwee rek dana fekk bunt yoo xam ne soxla woon nañ loolu kon ko fattal te li ngeen di dajale mi ngi ne fattal ay bunt kon ñu ngi leen sant di leen gërëm te di leen soññ bu baax ndax euh, jafe-jafe yëpp bu ñëpp xàccandoo di dóorandoo rek ku ne bàyyi ko xel li daara ji jaboote xajut ci daara ji kon ñu bàyyi xel baax waaye nag teewul daara ji li mu ci jot a néew mi ngi sant mi ngi gërëm ci turu mboolem ñeneen ci biir daara ji naka noonu day réseau saxaar bi nga xam ne euh, mbokk mi doon wax léegi ci seen tur la doon wax moom itam sëñ Muntaxa nee na mi ngi koy leen di jotal ay cant yoo xam ne mi ngi koy seedeel mbooloo mi ndax courant daara ji ak yuy demee ne courant daara ji yëpp ñoom ñoo ko gàlloo di ko euh, fajal daara ji ba daara ji yooyu amul ci benn problème ñooñu itam bu ko doyee def dana jaaru bu kilifa yi teewee mbokk yi teew waa daara ji teew ñu seedeel ak cant te di leen ñaanal bu baax a baax i baax di ñaanit mbooloo bi ñu ñaanal leen seen yéene yooyu ñu gën am kàttan ba gën ko mën a taxawee naka noonu am na daayira boo xam ne sëriñ Abo Gelongel mooy moo ko jiite muy daayira bu am solo boo xam ne ñoom seen itte mooy di dajale astuut di fexe ba lu mel ne bis bii nu weer weetu muy tabaski yi bu egsee lañ jot a dajale ñu xool daara jàngalekat yi ni bii daara yi ñu séddale leen ko ngir jàppale leen ko ci xew-xew boobu loolu itam di loo xam ne loo am am solo la loo xam ne saa su ñëwee rek dana fekk bunt yoo xam ne bu ko xottee ñoom danañ xam ne ñii kat seen liggéey bi ëppoon naa bañ a def kon ñoom itam daara ji mi ngi leen sant di leen gërëm di ko seetloo mbokk yi tey ñaan ñu ñaan leen bu baax a baax ba seen kàttan gën a dolliku ba yéen yi ñu am ñu mën ko gën a taxawee naka noonu am na daayira bu ñu wax nooru daara yi nii ñuy dal màggal ci biir daara ji xam gi ñu xam daara ji ak sew-sew yi ci nekk tax na bu ñu fi jógee màggal dañuy continuer di jàppale daara ji bu baax a baax a baax ci ay iteem ñoo itam suñu mu ne ñu ngi leen sant ñu ngi leen di gërëm tey ñaan suñu borom doole seen kattan ba li ñuy def ñu gën ko gën a mën taxawee naka noonu daayira bi nga xam ne ñoo méngoo set setal ci wàllu daara ji te soxna Seyna bu jaxate jiite ko ñoom itam wax dëgg yàlla eh, amut guddi amut bëccëg muy eh, waxtu wu nekk rek ñi ngi ñëw ci daara ji di ko setal di setal yére gone yi di setal li wër daara ji te loolu daara ji mënu koo ñàkk kon ñoom itam ñi ngi seedeel mbooloo mi ak kilifa yi seenu liggéey tey ñaan yàlla mu barkeel leen te barkeel seenu njaboot seen liggéey boobu itam suñu borom gën koo dëgëral te yàggal ko bu baax a baax a baax naka noonu eh, ñi ngi sant wajur dongo yépp ndax xam nañ ne wayjur wi jàngal doomam yar ko ci lislaam daf ko wara suñ borom moo ko gàll ndax moo wax ne yaa xam ne amanu xu anfusakum wa ahlikum naara kon bunt boobu mënoo cee jaar mukk te jàngalu sa doom yar ko ci diine waaye nag taamu giñ taamu daara ji tànn giñ tànn daara ji doyloo giñ doyloo daara ji jox leen seen doom bàyyi ko seen loxo ba ba daara ji di ci noppi loolu moom daara ji am na amel cant koo xam ne am na fu mu tàmbali waaye fu mu yem ndax kat luñ bëgg-bëgg ngërëmal jàngale alxuraan ci toyaaba yu bari yi mu amee buñ fi toogoon te kenn yi wóomatu sa doom indi lu ko loolee ñu bëgg duñ ko am kon na ngeen xam ne ñun liñ bëgg ci làq ngërëmal yàlla ngërëmal sëriñ bi yéen yéen ñu jàppale bañ mën ko am yéen itam ñu ngi leen di sant te di leen gërëm te di leen gën dalal seen xel ci ne incha allahu daara ji de jël na ay matukaayam ci ku fi indi sa doo bu fi génnee incha allah la nga bëggoon lépp ci am njàng akub yar nga amu ci am ko ba am ci lu kawe sa njor ngeen ñaan lu baax a baax rek di dogal ngaan tit ci yéen ndax jàngale dafa xaw a metti liggéey ci doomu aadama dafa diis te xam ngeen ne lépp lu mën a doon rek la léggéey liggéey toujours lay lay nga am ci accident boo xam ne doo ko bëgg doo ko gën du la gënal bu ko defee kii nga xam ne day ab tailleur di liggéey ci ay yére léeg mu dagg xam ne bëgg ko woon a dagg mais minute bi nga xam ne day liggéey ci ay band léeg-léeg mu dagg band boo xam ne bëgg ko woon a dagg minute bi nga xam ne day liggéey ci wàllu wi ñu itam léeg-léeg mu dagg loo xam ne bëgg a kon ki nga xam ne ci doomu aadama liggéey itam loolu fokk rek ngeen dogal ngant te xam ne eh, la lay yéene mooy la baayam ak ndeyam bëgg ci xale bi mu am ko ca waaye leneen lu jarxa rek ay rëcc rëcc lay doon yoo xam ne du suñu jublu loolu itam ñu ngi koy jégalu te di dogal ngant bu baax a baax ngeen xam ne liggéey bi rek moo xaw a jafe di leen ñaan tam ngeen xam ne ñi ne ci biir daal yor xale yi ay responsable lañ ay mag lañ ay boroomi xam-xam lañ li ma bëgg a wax foofu mooy jur wu mel ne man xale day ñëw ci moom di ko nemmar yoo xam ne ay lay rek la ngir bëgg a fexe ba teqali ko daara ji te jur wi xale yi léegi am nañ xel yoo xam ne ni ñu ràbbi seen programme bu ñu la waxalee si wa léeg-léeg ñu tëral le programme boo xam da ngay jàpp lii moom mën na ñàkk a demee nii waaye bu boobaa la la cay dimbale mooy bala nga jaa jël benn décision rek jokkoo ak daara ji jokkoo kilifa daara ji te lañ la fa wax na nga xam ne ki la ko wax kilifa la boroom xam-xam la responsable la bul weccee ay waxam ak waxi gone gi la kilifa ga wax ba nga ko woowee doy loolu la loolu ñu ngi koy bàyyi loo xel wajur yëpp ndax léeg-léeg euh, kilifa juum ci lu ko gone wax te fekk ay pexe la waaye day dem ba euh, juum ja ba noppi doo koo xam loolu na boo teyee tey jokkoog daara ji loolu mën laa bañ a dal di leen soññin ngeen xam ne daara ji lim am ci ay war-war bari na lool lool lool luñ ko jox lu bari bari doyul kon na ngeen xam ne gannaaw jàmbur yi ñooy dajal seen i dem ak seeni i daqaar di ko fi indi askama yéen ñi nga xam ne seen doom ji ñu leen di jàngale di leen ko yaral bu ngeen ko defut ëllëg da ngeen seen borom kon daara ji la ci wut di la ci taxawu war ngeen taxaw bu baax a baax ci jàppale ko ci ay itam ba du am benn jafe-jafe euh, bu ko defee naka noonu itam way ju euh, kilifa yi nga xam ne ba tey ci ñooñ ñu doon lim léegi di wax ñuy jàppale daara ji ñu wax ne sëriñ Abo Sey moom soxna ma Awa Mbacke moom sëriñ Habibu tam nekk ci Espagne moom itam am na kuréel gu fa jiite goo xam ne ñoom itam ñi ngi def seen itte ci xam ne dañoo waroon toog ci biir daara ji di jàngale bañ amee nattub génn itam teew na ngay jéem boole seeni doole ngir di jàppale daara ji loolu itam ñuy kilifa yi ko te ñaan ñu ñaan leen baax a baax ba seen liggéey boobu ñu am ci ay yu kawe yàlla na sàmm te aar leen te barkeel ñu am ko ba ñu fii ci réew mi euh, cant gi ñu ngi di sant suñu kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci kanam dañ wax ne peccum liir bu neexee yaay ja jàpp ca mbagg ya lépp résultat boo xam ne daar ji am na ko wala fépp foo xam ne àgg na fa rek ci taxawaayu kilifa yi la ci njiital sëriñ Basiir Mbàkke Abdou Majid mi ak sëriñ Seexuna waaye nag seen jëwriñ ju mat jëwriñ ji nga xam ne moo fi nekk di sëriñ Basiiru ak sëriñ Baar mi nga xam ne moo jiite majlis bi ñoom seeni taxawaay ak seeni eh, orientation ak seen alal yi mi nga xam ne moo ne eh, eh, Madiana ak mboolem kilifay kër gi rek ñooñu ñoo taxaw daara yi ba daara yi àgg mu àgg fa ñoom itam njabootu daara ji ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal yàlla ngeen yàgg fi lool te yéen yi ngeen am ci dundal liggéey bi sëñ yu bàyyi woon ba àggale ko foo xam ne ëllëg bu ngeen daje moom du ngeen rut yàlla na yàlla defal lu koy seen jor ci barke si Ahmadu Xadim ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jégalu ci kàddu gi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Rafah TV votre chaîne de télévision culturelle et religieuse waaw chaîne bi jug taxaw temm ngir yaatal lépp lu jëm ci wàllu diine rawatina njàngaleem Serigne Touba Cheikhul Khadim moo fas yéene nag gën a jege askan yi fépp fu ñu mën a nekk ci biir réewum Sénégal ak bitim réew ngir jàppale leen ci bépp xeetu événement boo xamante ne bii yéen a koy amal te ngeen soxla wàllu couverture médiatique waaw publi reportage réalisation documentaire téléfilm waaw wala lépp lu ngeen mën di soxla yéen ñiy organiser ay màggal cant yi gàmmu yi cérémonie yi Rafah TV amuñ ci morom soo bëggee ñu filmeel la diffuseel la waaye boo bëggee itam ñu filmeel la jox la say image wala say vidéo fépp foo bëgg nga yóbbu bu am xel ci jokkoo ak ñun 77 433 39 39 Rafah TV waaw moo mën ci seeni événement